Ce ñu fi indi ñun F24 président Macky Sall bi muy le président CEDEAO imposer réew bu a guerre mu organiser élection ñun askanu Sénégal nee une guerre amul Sénégal Sénégal day dem élection 25 février 2024 président Macky Sall a imposer réew boo il est menacé de partition Mouy Mali réew mo xamné dafa wax wa CEDEAO nelen élection amna solo mais jamono ji dafa am ay Samba boy yi nekk au nord du Mali Dañu bëgg xar Mali ñaar Lolu moo ñu gën a yitteel bu jafé fànkee jafe ñu jublu ci élection président Macky Sall ne ak CEDEAO da ngeen di organiser élection Sénégal amul menace de partition Sénégal day dem élection présidentielle 25 février 2024. Euh, président Macky Sall si le président Abdoulaye Ouad touche à la constitution il sera délogé du palais du palais présidentiel ñun askanu Sénégal le 3 avril 2024. bu delloowul nguur gi dinañ ko déloger du palais président Macky Sall moo waxoon ki nga xam ne moo nekkoon président de la république muy suñu pàpp suñu baay suñu maam lay Wade ne ko boo delloowul nguur gi la 2 avril man président Macky Sall jiite APR jamono jooju dinañ taxawal gouvernement parallèle ñun askanu Sénégal nee nañ le 2 avril lay la ñuy delloo li le 3 avril bu lànkee dinañ taxawal suñu gouvernement muy gouvernement askanu Sénégal mbokk yi pesum kanam borom moo koy fajal bopam. Xex bi du xexu Boubacar Camara Xex bi du xexu sama yaay Aïda Mbodj Xex bi du xexu Bougan Gueye Dany xeex du xexu Ousmane Sonko ak Pastef Xex bi du xexu parti politique du syndicat du mouvement citoyen le mbooleem citoyen sénégalais Quel que le wu le président Macky Sall bëgg def moy confisquer sañ-sañ bo xam ñun ñëpp ko carte électeur la yor yoruma ñaar carte électeur am sama yaay carte électeur la am yow journaliste bi carte électeur yow mii nappkat bi benn carte électeur nga am yow sàmmkat yow ouvrier benn carte électeur nga am suñu carte électeur yi yow yëpp ñoo ci yem président Macky Sall daf ñu bëgg a xañ bës bi nga xam ne mooy suñu bës ñun askanu Sénégal muy bésu vote loolu nag waruñu ko seetaan ñun ñëpp ñoo war a ànd def benn say fépp ci Sénégal ak ci bitim réew fi doomu Sénégal nekk nañu takk sër nañu takk ngemb yi fas jakarlok nonu suñu constitution fas jakarlok suñu non ndaxte benn non rek lañu am ki nga xamné ne buñ ko sétané Sénégal ci coup d'état militaire la jëm ndaxte tay coup d'état constitutionnel la waaye buñu continuer dafa melni sax président Macky Sall dafa am candidat bo xamné général la dafa melni président Macky Sall daf ñu bëgg yobu ci coup d'état militaire dafa melni dafa am général bo xamné dafa ko ba di ñu gasal ay ndëgg sërëx pour ñu daanu si te loolu duñ ko seetaan loolu duñ ko seetaan àddina bi yëpp nee nañ ànduñu ak li président Macky Sall def àddina bi dafa feelu askanu senegal li ci des nag mooy jëmmal jëmmal ndaxte nit quand on n'est pas d'accord on dit non boo àndul ci mbir da ngay naan déet maa lànk maa bañ du ma ko nangu loolu nag lañu ñu war a def tey

mbir mi suñu mbir la ñun ñëpp lii laa amoon li may wax te xeex bi du dàq feek président Macky Sall delloowuñu li nga xam ne ñun ñoo ko moom muy suñu constitution muy suñu souveraineté muy suñu moomeel muy suñu élection ci élection la ñu jëm rey nañ fi juge élection am na juge démissionné na élection am na nee nañ ma c'est bon j'espère que président Macky Sall dina ko dégg